soxna astu boo taajee añ la ca ne di tolloo genn wàll liibaru ceeb ak dogu yàpp nga toog a kii gone eh, xanaa nag danga bàyyal xale yi eh, dogu yàpp xanaa danga leen bàyyeeg ceeb ba yow ñamal rek boo paree nga dem mottali koo ndox loolu mooy li nga xam ne ne il faut ñu xam ne ne génération future yi ñun ñii ñoo leen mën a liggéeyal te pour ñu liggéeyal leen il faut ñu nangu ñun def sacrifice daanaka am bàyyil nañ leen neuf cent mille pour tooñ euh, euh, ci loo xam ne ni mooy bor yi rek dama doon wax noonu kii mais bor yi la bàyyil nañ leen bor yu metti mm-hmm. il faut ñu bàyyil leen dëkk boo xam ne ni ma dellu siwaat ci projet bi dëkk boo xam ne ni dellu si na mënal boppam mënal boppam gi mooy fexe ba autosuffisance alimentaire nanu bàyyi mille deux cent milliards junni ak ñaat téeméeri milliards ñu ngi koy def ci jëndi lu nuy lekk te ci baree ngi ñor fii Sénégal nanu fexe revenir ci suñuy réalité sociale nanu fexe nongu def benn sacrifice bi te il faut ñu def ko surtout mag ñi nanu def sacrifice yi pour xale yi amul dëkk bu tabaxu te amul génération bu sacrifié wu waxuma ñu dem ba ne dañuy dégrader seen style de vie déedéet dañuy dem ba nangoo muñ lenn li bañ a ku ci ne di laaj augmentation de salaire loolu buñ ko defee dafa am lu ñuy yàq bañ aussi ne kut que kut man état bi lu ci man ti doon man lii man laa man laa man laa neex na lool mais il faut ñu am benn consensus social il faut ñu amaat benn contrat social ci réew mi il faut ñu hmm. àndaat xam ne ni réew mi pour ñu defar ko il faut que génération bii sama maas geek ñu ñi ñi gën maa tuuti at ak ñi ma mag nga xam ne ne bëriwul on ne fait que vingt cinq pour cent ou même moins nan xool xale yi ci seen ginnaaw ku xëy suba gis xale yi di jàngi war ngaa tiit man daf maa yàgg tiital sama ñëw dugg ci gouvernement bi loolu ci la bokk dama ne lum néew néew néew bari def naa fanweeri at ak juróom-ñett bés bési aw la ma fa jàng la ma fa xam li ma xam ci économie sénégalaise naa ñëw ñu ànd defar réew mi ce n'est plus une question de parti politiques. Ce n'est plus une question de Bassirou Diomaye Faye ou de Ousmane Sonko. C'est le problème de l'avenir de ce pays ëllëgu réew mi ñu génération bii bu nanguwul sacrifié wu dès deux mille vingt cinq. mën naa jur lu ne. kon euh, mën nañ jàpp ni contestation bi nga xamante ni def nañ ko ci chiffre yi ndax euh, mise à part aujourd'hui euh, l'ancien chef de l'État bi nga xam ni moom moo ko def am na ñeneen ñu ko def mu di ay journaliste ak yeneen ñi nga xamante ni peut-être jàngat nañu mbir mi yéen ci FMI rek ngeen di basé wu pour leeral loolu wala da ngeen am yeneen voies et yi nga xamante ni c'est vraiment pour clarifier cette situation histoire aussi de gagner la confiance aux partenaires ouais, bon. internationaux <laughs> réew mi daa toog tegu ci ay charte inspection générale des finance bu defee rapport am jox ko cour des comptes cour des comptes fee fësal ko waaye li wér te wér waaye kan moo ñeme ci nguur gi ñëw di joxe chiffres yu baaxul <laughs> kan moo ñeme ñëw ne nguur gi yow chiffre bi du woon lii lii la kan moo ko ñemee def ci ak projet bi en fait nan imaginer un man léeg-léeg bu ma déggee nit ñi di wax damay jaaxle man fonctionnaire la ma ñëw ñu ne ma ban chiffre ne ma ne ñu ngi léegi quatre vingt quatre pour cent de taux d' endettement dix pour cent de déficit te teg ko ci lu dul dëgg kooku bu ko Cour des comptes d' accord ma ci yow foo jëm chiffre yi baax yi nu joxe yooyu la keneen nag kuy wax leneen waxal leneen waaye li nu wax noonu la. sànq maa ngi la ko waaw allez-y uh-huh. non li ma bëgg a wax mooy ne man day dëgg-dëgg sama wàllu bopp laay waxal amul lu ma jaral ci àdduna. di wax lu dul dëgg wallahi lazim jaraluma ko man poste bii nekkoon heure bi dem ca daara ja di jàngale jee ma gënal wala ca ca école ya ndax bu ma xamoon ne lii ñu ma woo ay caaxaan la suba ma jël samay bagage dem sama yoon mm-hmm. tout à l'heure yaa ngi koy wax euh, xëy na ñu bëri ñu ngi lay interpeller euh, ci li nga xamante ni moom mooy euh, banque centrale ba nga nekkoon mhm. responsabilité am ci lii nii mais aussi d'aucuns demande aussi mbirum programmation budgétaire lan mooy responsabilité ki nga xam ne surtout moo ko yoroon ci lii xew maanaam manque de transparence bi nga xamante ni amoon na ci waaw mais loolu nanu bàyyi ba rapport bi génn ndax man je ne suis pas placé pour def leen waaye li comment ça peut ça li non wér yaakaar naa ne moom ci wàllu boppam dana ko leeral. man mii gis nga tuuma yéen ma teg ma ñëw weddi ko fii moom itamit dana ko weddi. giñ naa ne man leen ma jox laa liir danga nga njort dara waaye nag njort du tax nga duut ci baaraam. nanu bàyyi yàq deru nit ñi. fii réewum ñu gëm yàlla ñoo fi nekk. ci loolu lan wax ne nan gëm nan yàlla waaye ñëpp a xam li ne ci sosal doomu aadama lu amul man mii de sosal nan ma loo xam ne ne amul te wax naa lekkoon fii euh, aujourd'hui ce qui nous importe mooy d'abord qu'on s'accorde de tous que chiffres yi joxe woon baaxul qu'on s'accorde de tous amuñu woon leneen luñ mën a def lu dul wax ni baaxul ndax buñ ko waxul woon mooy ne danoo déparé nguur gi ci ay ay nar ay tappale te yaakaar ne ñii nii ñu reyal seen bopp mu jaral leen lu ne dugg kaso gis ñu seen njaboot teg leen liñ leen di teg ñu ñëw ñu ne bisimilaay salaamaaleykum ñu commencé tappaleeg sénégalais yi loolu xel mën na ko nangu déedéet li ñu wax mu am mu am mm-hmm. danañ wax li xew danañ jubbanti liñ mën a jubbanti ndax man bu fekkul woon ne mbiru jubbanti la duma ñëw ci gouvernement bi ndax man ministre dawloowuma <laughs> ministre dawloowuma li ma tax a jóg mooy jàppale leen ci jubbanti bi te loolu dama bëgg sénégalais yi bàyyi euh, nan la tudd euh, par parloo beeg partisanisme c'est-à-dire du yëfi partisan yëfi génération wu sénégalais yi ñëw la dëgg-dëgg bu nu deful ndànk xale yii di ñëw suñ leen defarulal seen avenir kenn du nelawati ba yandoor kenn du nelawati ba yandoor sama question bu mujj mooy euh, mbirum euh, toujours si si budget bi mais bu ñuy def réajustement euh, budgétaire souvent xëy na pour jooyanti yenn secteurs yi mën na laal li nga xamante ni moom moo di mën naa ko tuddee financement sociaux yi wala li nga xam ne moom moo gën a touché population bi nga xam ni xëy na loxoom jotul ci ginnaawam fi lekk at yi di ñëw est-ce que sénégalais yi mën nañu ne. yaa ngi koy wax nag depuis tout à l'heure fay leen impôt fay leen seen impôt yi mais bu weesoo loolu est-ce que mën nañ leen garantir benn euh, vie boo xamante ni di si euh, ces deux ans à venir là boo xam ni bu bu stable lay doon mën naa ko euh, tuddee noonu programme yi fi nekkoon yëpp daanañ wax équité sociale ak jàppale néew doole yi différence bi bi pa boo ko xoolee ci deuxième poto bi ñu teg capital humain de qualité équité sociale mooy fexe jàppale nit ñi yaakaar naa ne projet bi foofu lay wuteek ñu bari lu man di am danan fexe ba néew ji doole waxuma euh, nan la tudd ñëw rek ji leen jox ñaar dërëm ñetti dërëm déedéet li ñuy njëkkee mooy danan fexe ba aar leen ba seen situation bañ a yées liñ fi fekk buñ pare ànd tabax nu nuy fexe ba ñu bokk te loolu mën na ne ndax ku dem ba am budget juróomi junniy milliards dëgg dëgg dëgg dëgg xanaa jàppale néew di doole yi yomb na wane nañ ko ci baykat yi te loolu danoo ñëw rek ñu ne salaamaaleykum nawet bi taxaw. Mm-hmm. projet bi bu jàppee ne benn fi mu mën a defee différence fondamentalement mooy ci équité sociale c'est-à-dire jàppale néew di doole yi ak bon gouvernance mooy fexe ba réew mi désormais mu nekk réew moo xam ne ni doo fi gis loo xam ne ne dana la jaaxal ci mbiru nun ko yore. ñaar yooyu bu ko xasee ba def te moom la am dogu te man ñii nga xam ne ne maa ngi nekk ak ñoom régulièrement premier ministre bis bu ne président de la république ay bis bu ne euh, li ni li niy li waxoon nit ñi man moom laa gis danoo gëm li ñuy def te ñu ngi koy doxal te man mii encore une fois ku ma xam xam na ne duma dugg ci ay caaxaan ndax man yoroon naa sama teraanga ba pare te fa ma nekkoon maa ngi fa doon jariñ une communauté huit pays waaye dama xamoon ne Sénégal soxla na ma Sénégal demandé ñu détaché ma ma ñëw jàppale leen te regretté wu ko benn yoon c'est avec beaucoup d'émotion parfois laa leen di gis ñuy def yenn yi. Mm. man du ma kenn di kii kenn du ko def. li ma def wa maa shahidnaa lu ma seede rek dama koo xam ma gis ko ci ñoom. campagne wul ma kenn waxuma kenn lu neex ndax taxumaa jóg te ko xam njaboot gi ma jóge xam ne ne ñun duñu duñu jëy nit li ma gis ci ñoom bu nu yàlla dimbalee ñu ñu nekk doxe noonu yaakaar naa ne 2025 danañ gis soppeeku ci Sénégal ndax dana bari loo xam ne ni danañ ko jooyanti ci bonne gouvernance dana bari yoo xam ne danañ ko geestu ñi nga xam ne ni néew nañ doole mais encore une fois 2025 25 danañ gis déjà différence ci gouvernance ak gouvernance ak équité sociale danañ ko gis léegi mm. nu ñu yorem réew gis ngeen ko déjà yëf yi tegaat nañ ko ci raay bi nu ni fexe ba yemale nit ñi commencé ngeen ko gis ñaar yooyu moom day visible tout de suite li ci des nag il faut ñu am suñ premier budget wax ne ñoo ko moomal suñ bopp xanaa buñ jógee suusol yéeg tuuti rek ba xam fun fun kii di doog a dem mais engagement bi nu am man dama koy wax je ne suis pas un politique parti Sénégal laa bokk moo ma tax ma jóge fa ma jóge mënoon a nekk ci sama tranquillité ba kenn du ma sànni xeer waaye defuma ko parce que dama xam ne ni y a un péril sur ce pays là. vous ne faites la politique mais vous recevez des coups politiques. Euh, mais souvent. je l'accepte parce que sacerdoce la. Hmm. parce que man y a un péril jeune qui est là. y a un péril jeune nan la nit mën a xalaate xale du nit dugg ci gaal. waajuram fayal ko muy dugg ci gaal mais loolu euh, ñun ñëpp ku ci tëdd nelaw war nga xam sa responsabilité lan la. est-ce que jàpp nga ni loolu baromètre la wala en tout cas benn xeetu signe boo xamante ni day wane toujours que la li ñu doon dig population bi ba tey matalee. non en fait y a euh, rebasing social bi premier ministre di wax dafa am contrat social dañ ko war a defaraat Sénégal njaboot yi alhamdulilah mais li tax ñu ànd ensemble. fan lañ ko teg fun ko wékk fexe ba dalal xelu xale yi ndax waxambaane mu amulu xëy nekk ci kër gi di kii léeg léegi nga tem saytaane dem ba man ko wala dem ba man seeni waajur ñu def loo xam ne ne waruñu ko woon def mm. loolu la ñuy woo yi xam ne ni c'est une responsabilité individuelle d'abord képp koo xam ne ne yàlla jox na la xel képp koo xam ne ne yàlla jox na la alal képp koo xam ne ne yàlla jox na la position nga nekk ci parparloo alaaxira da nga ko layoog yàlla danga nga ko layoog yàlla ndax da ngaa yoreel àq askan wi. jërëjëf. monsieur le ministre euh, di la jëfal bu baax a baax bàyyi la rek nga tàggoo ak téléspectateur yi. waaw xanaa mooy kàddu yi ma mujjee rek euh, encore une fois man politiguma politiguma